kaa gi ne na dix ans ngi nii muy jël añ nag di ko dugal ci biir kaso bi yéen kaay gi ne na daan nañu koy yoo bëri na ne bi ma koy boo xam ne daal saa su nekk boo xam ne moom la ñu tëj sa kaso bu Rebeuss yéen kaay gi ne na restauratrice boobee nga xam ne moom la ñu dëgmale la ñu nga xam ne moom la ñu ak lu jëm ci wàllum parrainage bi nga xam ne bëri na ci opposition bi ñoo xam ne dañu ko lànk waaye nag l'observateur nee na dafa am benn mbir moo xam ne moo ko na ñi nga xam ne ñooy waa Pastef ñoom ànduñu ci nañ ko yéene kaay gi nee na waa ñoom nee na ñoo ànduñu ci parrainage bi te seeni fichier jëli ko yéene kaay na bokk gis nee na àndul bi te na ko gëm sa bopp àndul ci parrainage bi te ay fichier na ko yéene kaay gi du l'observateur na mbir maa ngi noonu yéene kaay gi de enquête xëy duñu xibaar nañu en tout cas démocratie bi jamono ci ma ngi si tension bu rëy ci lu jëm ci wàllum parrainage parrainage bi ak fichier électoral bi ak carte électeur yi yéen a gi de la témoin nee bi jamono ji opposition bi ak bi ñoo ngi koy waxtaane waaye nag ak déggoo ci boppam munta am ci seen biir maanaam soriwul ak li nga xam ne mooy nag waxtaanu tëx yéen a gi di réew mi quotidien ak sud du quotidien nee na bi ñoom gii Mari Sagna ni ki nag doon nañu amal li nga xam ne mooy am mars ngir nag naqarlu lu jëm ci wàllum parrainage bi waaye nag préfet toll ci fukk ak juróom-ñett ci activiste yoo xam ne ni ki démbu teg nañu leen loxo yéen a kaay gi de la sa nee di président Macky Sall ci week bi dina dem te diwaanu Fatick ak ci diwaanu Mbour ngir nag waxtaan ak waa Benno Bokk Yaakaar ndax Macky Sall ci boppam xam na ne Benno Bokk Yaakaar ca Mbour ak ca Fatick dafa am ay jafe-jafe yéen kaay gi de la tubé koy fekk fa Khalifa Ababacar Sall ci journal bi ne nag am na lenn loo xam ne Barthélémy Dias yéenekaay gi di Le Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu armée bu a baax ki nga xam ne mooy Salif Sadio yéenekaay gi di Le Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu am na ñenn lu doy waar a doy waar loo xam ne nag ñi nga ñoo leen ko teg am na ci kenn koo xam ne nee na waa MFDC ñoo rey waajuram wu góor yéenekaay ni ki démb daan nañu ko mu ñibbee jabaru Diop Isaac bi doon ko tuumal lu jëm ci wàllum Njuuñ Njaaj foo Issa Defo ci ak këru Jóob goo xam ne maanaam ma ngi nekk Sacré-Cœur jabaru Jóob Iseg ba woon moom ni ki démb nag daan nañu koy libéré waat ginnaaw benn fan boo xam ne def na ko sa kasuba yéen kaay gii di lii ko di cee xëy dañu xibaar naan ñu pont bu Foundiougne danañu ko inauguré ñaar fukki fan juróom benn ci weeru mars yéen kaay gii di réew mi ko di cee ñu koy fekk fa Joseph Mendy ab médecin daat wax nag képp koo xam ne daa di ngay fësal sa kër la ci mën a fekk ak mbir nga xamante ni moom la doy waaree la nga xam moo tax mu daal ci yëkkati ay ñu wax ne dafa yegg ci benn xale bu jigéen ba mu wànnoon lor ñu daal di fësal li nga xam ne moo jëm ci wàllum secret médical am yéen a kaay gi de la Soleil xëy dañu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall jëlee na fi ARMP ARMP ñi nga xam ne ñoo yoroon lépp lu jëm ci wàllum saytu marché public yi li ñu fi andi mooy ARCOP loole nag mooy autorité de régulation de la commande publique yéen a kaay gi di Walf Fadjri xëy dañu xibaar naan ñu nag jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci diwaanu Mali soo muy tuulee dina jeex ndax ki nga xam ne mooy Assimi Goïta daanañu koy invité ci sommet bu a